cey sëñ Touba cey sëñ Touba sëñ Touba lu mu la defal. su ma bay su ma ko waxee nit ñi dañu jàpp ne bokkaal lay bëgg lay def dama koy wax nag di ko wax lu bare bari. lan la ma sëriñ Touba defaral. rëy na lool. waaw sëñ lu may laaj rëy fu ma ko wooyee mu wuyu ma sëñ Touba dama ko rusa woo sax. sëñ Touba defal na ma lépp. Touba lim ñu defal man. mënuma koo misaal ci ay wax mënuma lu dul di xëy di ko doxee di xëy di ko woyee di nelaw ak moom di yeewoo ak moom di ko ko sante saa su nekk nag. ndax murit moom boo juddoo di murit rek ak defal foofu la tàmbalee ci yow boo juddoo bokk ci tànnifu Serigne Touba ak defal foofu la tàmbalee ci yow. tool bi dafa maa sonaloon lool man ba ma laxasaayu 2002 ma dugg Serigne Touba si la ma tool bi bàyyi ba tey. barki Cheikh Ibrahima Fall si tey laay wax. sëñ Touba lu mu la defal. lépp lépp la ma sëñ bi defal lépp loo xalaat rek sëñ bi defal nañu ko. Euh, bëri na saa yu nekk fu ma jaaxlee moo tax jaaxle sax dootuma ko def léegi ndaxte euh, problème bu ma am bu lu mu diis diis diis dafa may wóor ne sëñ Touba dina ñëw wàllu ma ci. bi ma nekkee xale sama maam bu góor moo ma yar. waaye mën naa waat ni Serigne Touba tax ma xam yàlla moo tax ma sentir yàlla ci sama xol ndax j'ai pu mun na def différence bi daal def différence bi bu baax a baax a baax j'ai appris Serigne Touba te Serigne Touba moo nekk ci suñu xol te comme li Serigne Touba wax rek ne chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle loolu ce sera éternel. Sëñ Touba lu mu la defal. waaye sëriñ bi daal lim ma defal moom bokk na ci duma xëy ba jant soo moo xam Sénégal la moo xam bitim réew la te duma gis ku ma màggal wala mu ñaanal ma te lu tax yëngu gi nu yëngu ci yoon wi loolu rek moo tax du ci bëre lañ ñuy sante wala ci musique wala ci football wala ci course wala lamb wala dara Serigne Touba daal du nu xëy ba jant so ba tey jii bi ma xëyee bi ma daataan egg si fii gis am na ñu may romb ah sëñ mbay yow de dama lay gis ci télé bi yow dama lay nangam ñoo xamante ne xaw ma leen loolu daal mbàkk ci gàttal ak it Euh, loolu lenn la ci waaye lu nu am Sëriñ Tuuba ni nga xamante ni moo waxoon yonent bi nafsi wa diini suma ahli wal nu ni jox nañ ko sunu lépp waaye loolu delloo nañ ko lépp lu nu am ci teraanga Sëriñ Tuuba la. Sëriñ Tuuba lu mu la defal. toog naa jàq lool mu metti mu metti daal jàq lool lool lool lool lool ma toog jaaxle ba yàgg ma ne déedéet man warumaa jaaxle parce que Sëriñ Tuuba toujours dina ma wallu. te ni ma ko xalaatee bi ma xëyee le lendemain laa gàggantiku. sëñ Touba lu mu la defal. defal ma loo loo xamante ne làmmiñ mënu ko tudd te lot naa si di ko sant beneen bi tamit eh, samay wàllu waajur samay wàllu mbokki bopp mooy ñi ma bokkal deret sama côté waajur bu jigéen sama côté waajur bu góor daanaka ba mu dund saa lëjoon naa lool waaye nag mësuma ñàkk problème mosuma am benn problème lëjoon naa mooy dama dama dama lakkale woon daal tellement lu bees lu xew damay bëgg tout nekk si si si si si si si si damay bëgg nekk si diaspora bi ma maaseeg li nga xam moo xew an suñu borom ba mu booleeg sëñ Tuubaa ba mu koy liggéeyal daanaka suñu waa kër ñàkk jox cër gën ma ñàkkoon jox te jox nañu ma ko ba mu mat sëkk te suñ waa kër lépp lu ñuy xew le man la ñuy njëkk oo muy samay mbokki waajur jigéen samay mbokk waa kër bàyyi nag féete Mauritanie ñoom daanaka. jox nañ ma cër goo xamante ne nee naa cër gi ndax man mérito naa ko damay dee sëñ Tuubaa la rek. sëñ Tuubaa lu mu la defal. ma defal mooy raxas sa kañ ñun miseeg gerte caaf lañ jaawale miseeg gerte caaf noo ko tege ñu dundee ko. amul bàyyi nii toi nii si cee wax lenn fi li ma yem sëñ bi daal mu ngi noonu mooy sëriñ bi sëñ bi daal moom mooy sëñ Tuubaa. sëñ tubaa lu mu la defal. Euh, su ma bay su ma ko waxee nit ñi dañuy jàpp ne bokkaal lay bëgg lay def dama koy wax nag di ko wax lu bare bari. mooy xëy na bu fekkonte ne sëñ Tuubaa mut mën naa am du ma judd loolu mooy lan mooy samay wayjur maanaam samay yaay ak sama papa ci keppaaruk sëriñ Tuubaa ci daaru xudóos la ñu daje ba sëy fa ba ma juddu fa benn bayti nga xam ne ci bokkoon na ci këru sëriñ Tuubaa yi bi muy nekk Tuubaa falaa dale baax te ji bo fa duggé am fa dimb go xamné man mako fa jiwon bamay jangal qur'an mang fa ba légui di dimb ma commencé mag ñaar ñet njàngum tuba mi ma def ba am ci luma am bu dul woon sëriñ Cheikh Ahmadou mbak Gaïndé Fatma ma duma ko def ndax moma duggal dugal moma mom mom ma moom moom moo d'abord moo ma dugal alxuraan benn Mbacke ak sonna Suburi moma ma tay ci serigne Mbacke son loo ma jàngee fa français voilà depuis juróomi at am sama entrée en sixième ak sama certificat d'études yóbbu ma Gossas bañ ma yóbboo Gossas kër sëñ mu Moustapha Bassirou laa nekkoon fa laa jànge ba am fa BFM jóge fa ñëw ndakaaru dem kër sëñ Samba Gaye Ndefaat ma gii nekk ci Colobane ba am bac kon bu fekkoon te ni sëñ bi amut man mën naa am sax duma am kon nag sama lépp moom la. sëñ Touba lu mu la defal. déggoo li ma wax maanaam fu ma toll fu ma toll rek mu may wuyu fu ma toll rek mu may wuyu. ndax ci nit ki ginnaaw boo amul woon doo am foo toll mi ngi lay wuyu. sëñ tubaal lu mu la defal. benn bis la boo xam ne duma ko fàtte mukk sama àdduna te boobu danaa ko yëkkati wax ko mu doon loo xam ne lu ma dul fàtte la. 2003 dama génnoon euh, Sénégal demoon Mauritanie ma àndoon ak benn euh, waay benn waay joo xam ne daal tubaarkalla daal waaye bi may dem boobu daanaka mën naa xam ne samay at ati gone laa ci saayir waaye ma toog fa ñaari bis yoo xamante ni daanaka ab dugub dugul dugul sama gémmiñ mu doon lu metti lool waaye bisu ñaareel bi bi ma xëyee damaa xëy jàng xasida wa kaana xaqan alaynaa nasrul na ma jaayanteeg sëriñ bi daan ne kat bu fekkente ne kat ñun suñu askan liggéey lañ dara ci sëriñ bi bu fekkente ne jàng gi may jàng xasida kat sëriñ bi nangul na ma ko bisu tey ji dinaa am dund te dootuma ko ñàkk te giñ naa ko Cheikh Ibrahima Fall bis boobu bi ma xëyee maneebar laa doon liggéey waaye bi ma xëyee dugg dem sànce ba wàcc kër gi ma dëkkoon laa fekk ñu tibal ma bool boo xam ne juróomi nit mën nañ koo xéewloo te waxuma leen ko loolu lu ma sëriñ Tuubaa defal la lu ma dul fàtte ba mukk te loolu giñ naa ko serafal lu sedd sama xol la. sëriñ Tuubaa lu mu la defal. sëriñ Tuubaa li ma defal euh, moo dàq neex maanaam di toog di yëg ci sa xol lu neex soo amul dara soo amul xaalis di bëgg soo nekkul fu neex di bëgg soo amul li nga xamante ni sax yow moom nga bëgg di bëgg ndax mbëgte boobu Serigne Touba rekk ñu ko mën a jox waaw mooy mbégte bi ñuy xëy di ko yendoo di ko fanaanee Serigne Touba tax na yéenewuñ kenn lu bon yéenewuñ kenn loo xamante ni ab safaan la ndaxte mbégte la ñuy moom lañuy fanaanee moom lañuy dundee kon jërëjëfe sëriñ tuubaa et cey Serigne Touba. Serigne Touba lu mu la defal. dana dana bi man dama daan toog ba maanaam bi may bi may def bac jamono yi ma war a def sama inscription maanaam bis bi ci mujj ma nga xam ne mooy dernier délai bi toog naa yuruma lu ma lu ma lu ma defee ins lu lu ma lu ma jëlee sama dossier yóbbu ko yuruma lu dara dara ci kolobaan gii falaa toog nit ñëw fekk ma fa jox ma juróomi junni ba ma ko joxee dama ko def sama poste daal ni siw dem régler loolu problème bi ci loolu mooy mais bi ci ëpp solo bi ñu nekkee tayif di ay xale di di jàng école dafa am benn bis ñu dem Sadio di fa football école bi suñu école bi nu gagné nu dellu si xam nga xalé bu boy football ba gagné dugg ci woto ñuy tàccu sama bop dama ko génne won manam bi may dugal sama bop ak bi ñuy gen garab gi mëtul gen gen walu seconde nga xane lu ca won rek ma faat ma japp ne lolu bokk na ci dimbal lu ma dimbali waye li gëna wër rek mooy koo xam ne bu amul woon mën naa am doo am euh, maanaam loo am rek moom nga ko war a moom nga ko war a moom ko war a sante parce que nag ñun euh, li nu booleeg sëñ bi dafa yàgg ndax bi sëri bi Lat Joor demee Saalum di xe jàppale ji ma ba Maba ma ba Fa génn àdduna la ànd ak njabootu Cheikh Ahmadou Bamba maanaam ma Mor Anta Sali ak njaboot gi ñu ñëw Kajoor Kajoor googee sëñ bi jóge fi dellu si Bawol di dekk dekkal si Mbàkke sañc Tuuba ba muy ñëw am te kon fekkoon na ñuy ay jaxat di jàngi alxuraan di ay afis di ay boroom xam-xam yu ne gàññi dañu ne fa ñukku lañ amoon topp sañ Tuuba kon koo xam ne bu amul woon mën naa am doo am loo am rek mooma kon sëñ bi moom fépp la ma féete maa ngi ci sant yàlla bu baax it nag euh, gis nga sëriñ Tuubaa dafay loo xam ne euh, dafa am benn boroom xam-xam bu ñuy wax Cheikh Tidiane da fay manam day du tax di sori mom ci affaire spiritualité Cheikh Ahmadou Bamba waye daf ko bok ci ñi nga xamne ne dañuy sagup der bu ñuul sagup der bu ñuul manam seigne touba c'est une fierté de l'homme noir parce que nak taxaway bi mu am ci nit ku ñuul ci diiné su ko jëkk wut itam ñi ko ci jitu bari wut loolu nak war nun wa Sénégal war sante yalla ndax yalla la neex nak loolu am fi loolu la am ci moom kon wax dëgg yàlla moom mm, ay njariñ kese la moo boo gisee ma bëgg am du sax dama ànd ak Macky Sall waaye dama bëgg ba ba àdduna tukki Sénégal nguur gu fi nekk yaag Touba du ngeen am lenn lu ngeen di réeroo parce que loolu mooy njariñu réew parce que sëñ Touba ay njariñ rek la aw lor newut ci moom li ma ko war a delloo mooy lépp loo xam ne ci xalaat ci jëf war naa koo man ngir njabotam gi su ma waxee gi nak moy talubi ak njabotu bopam gi bis bu yalla sak luma man pour def ko ngir ñu yek seen bop ci rew mi ma diko def ben ñaar la ci jiitu nak moy limu limma wax ne li ab julit da ko wara war a limma li tere ci julit ma bayyi lepp limma duggal dugal limma diggal luma man ma def ko lim tere ne julit wul ko def ma bayyi lepp lim ma digal ni julli war na ko def nag lu ma mën mu def ko ci cëy sëñ Touba cëy sëñ Touba sëñ Touba lu mu la defal laaj bu jafee tontu la waaye laaj la boo xam ne ni itam def nuy rusloo